ña jébbaloon yàlla ak yonnen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu na ñoo war saxaari ndigal njëbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi léegi bafungu ñi léegi waaxu ñi wari fas murit ya dugg gaalu cant benn fëxal ñi léegi rootaani ñee ngi jaj ñee di nasal auzu billahi mina seytaan rajim wa inni uhizuha bika wa zuriyataha mina seytaan rajim rabbi ahonse bika min hamazati sayatin wa ahonse bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wasalla abada ala bihi lana huda bada seydina muhammad wal ali wa sahbihi zawina wali wali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum mbokki murid mbokki julli di ñoo leen nuyu gën gi nuyoo bu baax di leen siyaar nu waree te jital suñu nuyoo beeg siar bi Cheikh al muntaha Mbacké moom Serigne basirou mm. ñaanu ko saa borom yàlla ko fi lol te wérul ko mm. ba mbooleem naal li nga xam naal nako ko yéen ko liggéeyal maam ju teddi je Sëñ bamba sa borom dolli ko katan ak man-man dafal ko mm. tawfeex bu nim ko bëggee mu amé ko ni noné lañ koy ñaanlee Sëñ Amdi moom Sëñ Modou Fall Menda sa borom gën ko fi yagal te wérul ko ba ndigal li jógee kër Sëñ bamba yépp mën ko jëfé nim ko bëggee diñ ko digal ñukoy jëfé nim ko bëggee waye di ñaanal nak suñu yaaka ji tegg ëlëk Cheikh Fallou Modou Aminata Mamoudou ak rakam ji Cheikh Moustapha ak njaboot suñ mu daamit ak yëpp ñu ngi koy ñaanal mboolem murid yi ak mboolem jullit yi mm-hmm. te tuub bu baax nag di jéggalu di leen dalal bu baax nag seen émission pas-pas bi ngeen am seen plateforme Jazboul Mouride TV ajuma bu jot bu 20h jotee ñu si feggoo ko nuñ koy amalee saa su nekk rek Baye Serigne Ngom Diwane mm-hmm. Baye Serigne ñi ngi nuyoo bu baax tey siyaare delloo ziar ahonse bi kalimatillahi taamaati min sarri ma xalaxa wala xawla wala quwata illa billahi al alil azim رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا والأسر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على رسول مدة الإسلام وآله وصحبه الأقلام جنا ba ñu sant بور بو تيد بور بو ماغ نيوغي جولي ngi julli ci yonenteem bu tedd bi ak i waa këram di الله sunu yaakaar يالنا يالله دولي اي xadiim اكي ليرام serigne muntaha basir khalifatul haam li taifatul ayyadahu allah wa nasara di ñaanal serigne am di mbenda mom mi xamni mo fi togaay jotaayu sirafal yalla yagal ko fi wëral ko ak raqam di nuyu mboolem murid rek ak fépp fu ñi tewlo rek ci seen émission murid jërëjëf bay Serigne jërëjëf mbokk yi nga xamanteni ni tewlu li nga xam moy jotaay bi mm-hmm. tay nak ñu indi leen thème bu am solo manam mm-hmm. waxtane lo xamanteni ni day mbiru Cheikh Ibra mm-hmm. ndax kat sëñ Modou Aminta Fall day wax naan mm-hmm. Cheikh Ibra lenn rek la am mm-hmm. lenn ay bàkkam te mooy baat bi di baatu laa ilaha illallah loolu nag day alalu Baye Fall doon eh, mbir moo xamante ni ngànnaay la si ki nga xamante ni day yaakaar Cheikh Ibra tey nag ñu bëgg a waxtaanee fond forme bi nag mhm. ku ko bëgg am na émission boo xamante ni mhm. ñu koy wax Zikroulah ñu ngi nuyu baax sëñ Ablaye Ndaw mi nga xam moo koy amal mhm. di nga di nga di nga mën a gis foofu forme bi nga xamante ni mooy mooy mooy baat boobu di baatu laa la laa ni ko Baay faa yu dundee waaye dañoo bëgg a waxtaan nag si si fond bi ndax boo xoolee sëriñ bu mag bi indi na si ay ay ay ay ay wax yu baree bari yoo xamante ni. si mhm. yooyu la jëm. waaw si baat boobu la jëm. muy li nga xamante ni nag moom la Cheikh Rafal am. Mhm. te muy mbiram. Mhm. ndax yàlla nag moo màggal moo ko màggal. moo ni kat inna salaata tanxaani faxsaa wa munkar. waaye daal ni wala zikrullah akbar. kon yàlla moo moom moom moo njëkk a wane ne. tur bi moom tur bu màgg la. tur boo xamante ni. bu mu fonk la. kon bàyyi sëriñ. foofu lañu bëgg a duggee. maanaam si. Hmm. bat bi di la ilaha illallah wa ah, la ilaha illallah wa hmm. ah, muy bat bu 10 bo xamni nit ki buy dugg ci l'islam mom lay jëk wax hmm. wala bu ko waxul rek am julitam du wër mo tax bo xolé yalla sax dafa wax ci alquran wax ni yalla dañu séré naa amul benn bur bu man malaika yi nañ ko ak borom xam-xam mu ne nak na ngeen taxaw di ci mandu kon muy bat bo xamni bat bu reey reey reey la bo démé ci saru isa jaa di nga dégg sun borom ni fastahfiru innahu kaana tawaaban nit kuy dugg ci lislaam buñ ko tuddloo baat bu tuubee ba pare dañ koy tuddloo baatu seede yi muy waaw noonu la ah, noonu noonu la tegaloo yàlla gëm ko ak malaakaam ak téeree yi bisi mujj ak ndogal yeeg ya ci aju yooyu yëpp bu ko matalee ba pare nag la ñu xam ni kii ab jullit la dugg na ci lislaam kon muy baat boo xam ne moo fi jiitu ñun sunu juddu waaw moo fi juddu ñëpp ndax yonent yàlla Muhammad njëkk mi ñëw am na yonent yu ko jiitu woon yonent yooyu it boo leen xoolee am na ñu leen fi jiitu ba maam Adama maam Adama nag boo xoolee kallima bii nii la doon dawal ak ay naataangoom boo xoolee moom moom la yoroon ba mu fi jógee it yeneen yonent yi ñëw ba ci Ibrahima ak ñoom ñëpp ba ci yonent yàlla Muhammad nga xam ne baat la boo xamante ni bu nee zikar rek xel yëpp day dem ci moom lu tax xel yëpp dem ci moom mooy bépp baat booy zikar bu mën a doon dafa dajaloo ci laa ilaha illallah kon tey jii boo xoolee lay lu yonante bi waxoon walillahi tisun wa tisuna man axsa daxalal janna yàlla am na 99 euh, non képp ku koy tudd boo faatoo dem na boo xoolee wax ma 99 nooy waaye centième noo de jë sax nee nañ boo waxee laay laay la la am nga tuyaabaam kon muy baat boo xam ni foo ko waxee rek mu boo waxee zikar rek xel yëpp day dem ci laay laay la laay laay la nag dafa bëri ay njariñ bëri ay meññanteefam te euh, incha allah rabi ci biir émission bi danañ ko gën a leeral danañ leeral ay limam danañ leeral it ay tegginam ak mboolem ay njëriñam ya ci aju incha allahu rabbi balaa ñoo àgg si mhm. njariñ li waaw mhm. day mel ne sëñ Tuubaa am na loo xamante ni mhm. wax na ko waaw ci laa ilaha ci laa ilaha moom lañ bëgg bàyyi sëriñ Ngom nga ñëw si d'abord balaa ñuy jàll si si waaw njariñ léegi nag boo xoolee laa ilaha illallah suñ Tuubaa dani xam nga primaire daam secondaire daam nee laa ilaha illallah mooy primaire li mu doonee primaire mooy képp ku bëgg àgg ci yàlla nee na da nga ciy mooy mën a door a dem ci yàlla fa innaha bidaayatu wilaaya wa tarkuha nihayatul hawaaya nee na tudd laa ilaha illaa moo gën a màgg ci lu ab jaam du bëreel ci gémminam mooy li nga xamante it mooy lu nit di joggi ngir dem ci yàlla moom lay wax ni amma dawaamu zikri waxu akbaru min kulli ma kaan muridul yuksiru fa xultu zalika bila israari fala ubaali zawil inkaari fa kullu man saxal ni nii fali jawaab xabla wala tujaaril ahlil kitab mu ni lépp lu ab taalibi du bëreel donte murid nga donte tijaan xaadir laayeen li ko gën mooy wax laa ilaha illallah sëñ Tubaa neen loolu wax naa ko te yellu ma ko dama ko béral te képp ku ma ciy dinget man sëñ Tubaa faale wu ma ni képp ku ñëw nag am ak ak taalibeem ak yaram di ma ci laaj lu tax ma loolu li ma lay tontu mooy demal ci alxuraan alxuraan nee na inna salaata tanhaanil faxsaan munkar waaye nag wala zikrullaahi akbar wala yaxlamu maa yasnuun kon uh, julli day fekk lu bon ak lu ñaaw waaye tudd laa ilaha illallah moo gën a màgg gën a rëy ci yàlla moo tax yonante bi dafa waxoon ni man xaala laa ilaha illallah muhammadu rasulillah maratan wahidatan fi fii umrika arama ila naari nee na laa ilaaha illallah ku ko wax benn yoon sag dund doo tàbbi safara waaw sëñ Tuubaa wax ni nag fa xultu man taraka zigrallaahi li zigri xayri fa xumrum laahi fa kayfa yansa aw yuxaafilul wara zigruhu lazi xalaxoo wasu wara sëñ Tuubaa wax ni yow nan ngay bàyyee tudd laa ilaha laa di tudd keneen ku dul yàlla nee na kooku loolu ku ko def fa xumrum laahi ab dof nga bu bu yeewul ab dof bu yeewul maanaam may jël maanaam sëñ bayloo wala demba wala paati am alalam ma koy tagg di ko wax lu ne te du ma jël sax jàpp bas yàlla di tudd laa ilaha illallah te ma doon def laa ilaha illallah dina am tuyaaba ba pare yàlla da ci fajaale sama aajo yi sëñ Joani fa kayfa yansa aw yu nan la nit di ag ak di sàggane zigrul lësi khalaqa waswara wara di tuddu ka nga xamantene mo la melol ba pare bind la nga baña melni ay xar wala ak wala ñoomin sen bind la nga am ñaari tank am ñaari loxo di sol ay yére bind la ci akhsana taxawim gën nga rafetuk melo ngay tuddu kene bàyyi fi yalla señ jani ne warta mëna a ne sëñ Tuubaa wax ni la ilaha illallah bokku na ci ñi nga xamantene borom xam li ñu indi dañ di ko boo bëggee boo bu la leeree ni mën ngaa mucc ci ngisal bëréel gi moo gën ba ñëpp dégg ko ngir nit ki bu ci jaaraatee da ngay am ñaari tuyaaba da ngay am sa tuyaaba bopp gi nga wax ak kee di ci konti maanaam di ci jaar masalan tey ji Baye Fall bu loolu laay laay laa ay xale yi xamul dara toog ca tëli ba ko ba mu waxee ñoom ñu jaar ci Baye Fall dina am tuyaaba boppam ak xale yi lañ wax waaye nag sëñ nee na boo ci ragalee ngisal nag léegi nag yow li ngay def leen la mooy da ngay wét sa néeg ut ab dog boo xamante ni lim bu la sa sëriñ jox ngay def laay laay laa ànd ak njàpp ak djublu penk ak jaca moy moy adabu zikri tan nañ ci jaw kon yoy it wax nañ ko sëñ touba nak neena bo boo mënee mucc ngi sal nak diko def ca kaw mo gën ngir nit ñi di la ca roy mu ne nag moom sekkereem moom laay laay la laa du lo xam dañ koy bind ci ay keuyit du lo xam dañ koy wisare neena lo xam ne la da ngay liggéeyal ab serigne comme niko ko seerafal defé da ngay liggéeyal ab serigne bam mu la nga am gërëmal yalla gënant ak sa ngërëmu serigne serigne bi déey ko mu nekk ci yow secret la secret la laay laay la laa boo xoolee laay laay la am ku ko am boo fekkoon ay bàmmeel nit ñoo xam ne safara lañ jëm nga wax ko benn yoon ñoom ñëpp yàlla jéggal leen waaye nag yàlla secret boobu du jël ñëpp la dal jumhur yi majorité parti bépp jox leen ay certain la koy jox moo tax képp ku ko am ci yoon bi maanaam ci àdduna waxuma ngay doon murit képp ko am ci maanam ci àdduna rek yow di nga jox Seera Fall valeur boo xoolee am na benn kilifa gu ñu doon wax soxna Serigne Mahidine Samba Diallo boo seetloo kooku daa amoon yàlla boo seetloo sax ba demoon sax da ko da ko wund mhm. moo tax foo ko daan fekk mu waxtaan rek day boole seerafal ci mbiram ndax laay laay laa seerafal nee na bu fekkoon ab bunt la caabi ji man na ko yàlla dénk ah. képp ku bëgg a dugg maa lay ubbil nga rentré hmm. loolu nag li ko may nekkul woon di wér dëkk kii rek waaye da doon liggéeyal yàlla di ko def moo tax yàlla dénk ko hmm. kon laay laay laa noonu la demee du loo xamante ni moo tax suñ caa dani wa kasuna asraaru lam yaliix xunaa li kaw ni fa man yurid kasfal la si tadammada yu tallihu dunya talaxan bayinaa nee na laay laay la laa ay mbóotam yellul ñu koy bind ci ay këyit ak di ko wax ci publiquement nee na boo ko nammee yow yow laay laay laa boo ko nammee mbóot mi suñ taxanee li njëkk mooy da ngay fase àddu àdduna doo bëgg alal da ngay jël dërëm dërëm ngay ngay yamale ak ak doon ci suuf ba pare it doo bëgg soxna doo bëgg ay kër doo bëgg ay doom dara yàlla rek lay ñor comme Ibrahima ni mu ko defee maam Ibrahima moom it dellu si waat nekkaat maam Ibrahima mii nga xam ne lu mu mës a jox na ko suñ tuwaa moo tax suñ tuwaa jox ko mbóot ma kon noonu la demee kon laay la nekkul loo xam dañ koy wisaare kon kon maanaam mhm. d'après li nga wax nii mhm. day loo xamante ni kon nekkul n'importe qui moo koy am waaw am na foo xamante ni fa ngay tollu ñu door la ko ñu roof la loolu walla te wax nañ ñi sax ne Cheikh Ibra Fall moom mhm. li taxoon mu ko daa tudd lu bari. Hmm. si sëñ Touba la ko gisaan. waaw moom la daa gis bu jullaan ba pare day takk ndigli taxaw di yooxu hmm. hmm. baat bii di laa ilaaha illallaah mu dem roy ko ci loolu. ba da toog sax fu mu toog. da daana wax sax naan da koy da koy nooyee. baat bi da koy nooyee léegi bëgg nga ñëw. diggante ñoom ñett. muy baat bi. sëñ Bamba. ak Cheikh Rafal. waaw laa ilaaha illallaah boo xoolee ñëpp moom lañ koy askanale. ñëpp boo boo nee laa ilaaha illallaah. xel yëpp dem ci moom Faal lañ ci. te te faal gi. laay laay laa faal googu lu mot a leeral la. am na koo xamante ni ci masaalik gii ma téye dama ko jàngal masaalik ba mu jeex benn jamono may laaj bàyyi faal yi ndax loolu ñuy def du bokkaale laay laay laa di ci teg sant ma ne ko déet yaa dee ni ab bokkaale la waaye danaa la leeral ndax euh, alxuraan dafa ni ku xamul dangay laaj ñu xamal la mu ni borom xam may nag yéen day leen fàttali fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ma ne ko laay laay laa faal boo ko déggee da daan def lu mu am jox Sëñ Tuubaa Dan dem sax bu amul dara dem majali indil sun jaa ca njël benam nak, mo tax benam ak dégg na ko bu yag mu ni seerafal bu njëkk ba daam ak bi ci digg bi seerafal bu njëkk moy bi don wër sun tuba ak bi gis sun tuba di wane nakala la ak seerafal bi nga xamanteni da don tosari njangalim sun tuba mu bu bi nak mo daan majal di def yooyu bu daan majal dindi ba tay nak mu majal dara doxul nak mu ñew di sikar laay laay laa niko fabal fal fal xam nga mom olofam olofu kajoor lo mo ñu gëna leer fal ñun fabal la wax fabal da guddu faa la gën faal boko doon bind nga nan da ngay ñëw rek faa ak alif ak lam rek mu jall waye fabal boko doon bind ba day am fofu nga door ak yi xam nga day yàgg tax faal laay laay la gi muy jall gi mo tax nag mu dëppoog santam ñu ataf ko fi mu continue waye jublu ci santam lañ cey tek ta bo jëlaté laay laay la mom limam exact poids mystique bi 166 la boko jëlé jëlee ci 111 moy faal da lay jox kun kun muy 236 kon xam ñom ñaar rek andu jóob andu laay laay laam bàkki andu ngom andu sen andu faal rek mu dem

per yi mu ko daan wér day ëpp loxo nii lay toll ay pëlëk ka daan defal mhm. yu toll nii ay per mhm. da daan dugal nag ci maanaam ma yooyu ñu defee soow pëli mhm. armi ñoom lañ koy lañ koy yet lañ koy defaree yooyu ñu defaree soow yu gudd la boo demee ci fuuta di nga ko gis yooyu leen daan def sikki see rafal ñu ko ciy dugalal am mag mi ko yoroon di ko xoojal léegi nag bu guddi jotee nag ci la koy génn bu ko génnee buy wérd fu tund mi fu waay ne rek day dégg tub tubi day dégg kii kon moom li mu am sàggante wala ñàkk xam fu mu jëm moo ko may xam li muy def bu wër moo ko may yàlla ba la ilaaha illaa gu diis gi nga xam ni ku yor mbóot ma koo koo bëgg mu dem àjjana mu dem koo bëgg mu dem safaan mu dem moom la ko yàlla joxoon ko moom gën gi alal moom la dénk waa këram jeex na muy la ilaaha illaa yonent bi kañ la wax dafa leer képp ku ko wax benn yoon sa dund doo dem safara man xaala muhammad rasulullah maratan waaye da doon fii mu rika aramay la nari yi te da nga wax ni ku ku maanaam ku ko kuy dugg si lislaam moom ngay wax moom ngay wax te Baye Fall nag boo xoolee sax ñu génnee leen ci lislaam te it am na loo xam war nañ ko bàyyi xel mm-hmm. julli koor naras ak añ màkka naafile jàng xasida alxuraan wird nangam nangam yooyu yëpp nit ki xam lu mu koy doyee bu dee dem àjjana te nit ki buy dee na la ñu xamee ni kii mu jug rafet la am mu ni laa ilaha illa door aj bëti ñu wàccil ko ko dégg naa sëñ Cheikh ah. ndigal wax ah. bërki dem moo Ndiaye daal ni sëñ Cheikh Fall Baye góor daa wax ni mm-hmm. maanaam dama doon sikkar ba faatu mm-hmm. doy nag lay ëllëg dëgg la ah. te li ci gën a garaaw Sam Fall amul cérémonie buy am nga rus ko faa yëkkati tudd ngénte dëj lépp amul foo ko mën maanaam rusee wax fépp lañ ko yëkkatee seet <laughs> mën nañ koo laay laay layal ngénte noonu dëj noonu lépp noonu te sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee na képp koo xam ni dëjam dañoo teew si karal ko nitu àjjana ngoog Sam Fall fu mu jub rek nitu àjjana ngoog Baye Adama Sarr Baye Adama Joxaane yàlla na yàlla dolli ngir ak leeram ba mu wàcc yàggul moo ñu ko nettali te boobu ñun ñëw ñëwuñu woon 2016 ba lañ commencé ñëw bisu xasida waaye 2015 bañ yëkkatee bañ nekkee ci euh, bisu xasida yi aliya mm-hmm. aliya fële ca euh, maraxib ñuy jàng xasida su su suwa lañ ko xëyee ba ay ngoon jàpp timis timis gi bañ bañ daajee sikar si gars yi bañ daajee sikar si wër sëñ sa dafa takk ndigg li joxoñ leen baa yaramay nettal de joxoñ leen ni leen lii de bu fi jubuloon ñu xam ne bañ xëyee ba tey dañ doon caaxaan sëñ Tuubaa nangu na jotaay nee na booy booy yëngu ci Sëñ ba Seera Faal ñëw rek nangu na waaye bu ñëw dara nangu ci day mel ne lekk goo xamante ni amul xorom te benn kilifa bu yàggul nee am na ci benn objet boo xam ni maanaam waañ bi bu ñuy denc bagage yi dañuy denc yëpp moom sax mën nañu koo bàyyi ca biti te moom moo ëpp solo maanaam yomb gim yomb nit ñi moo tax nit ñi yàpp ko muy xorom te bu amul ci cin li cin li dara du baax. wallaay. Serap Fall moom la. loolu de loolu moom lu koy firndeel mooy si koor gi rek. <laughs> bañ seeti jee eh, sëñ Mountakha Mbacké mi yàlla fi yàgg loolu tamit. maanaam bi ñu ko demee siyaare ji. Mm-hmm. dañoo yóbbi ndog ba nokk dem mm-hmm. dem dem dem dem këram. Mm-hmm. fee Daaru Minam. waaye bi mu jógee barab ba. maanaam fa isbu tarxee di jàngee. muy muy résidence. bi mu ñëwee si kër gi fekk ñu fa. fekk gars di saam di li di yëkk di tur yàlla bi. dañu kat li ma doon liggéey sëñ Touba mën naa waat ni nangu na ndax ku xëyee sëñ tubaa ñëw fekk see Ibra Fall nii sa kër mhm. nga xam ni bis boobu mhm. sëñ Mountakha dañoo bëggoon ñi ñi ko wër dañoo bëggoon mu ñëw rek jàll mhm. waaye daa mujj dem sax dem na sax ba fi soxna yi taxaw boo xam gi vidéo yaa ngi fi dem na ba taxaw di leen di leen taalal loxo nii nga xam ni ñi boole ko mbégte moo xamante te wax nañ ñu ne bokk na si li muy gën a dund mooy si sikkar dëgg la te Serigne Saliou Mbacke wax nañ ni daana ko daana ko defloo lu bari ndongo yi nekkoon xel kom daa leen ko daa daa leen daa ko defloo kon nekk na loo xamante ni lu am solo la dëgg la nga xam ni kon mhm. nit ñi war nañ koo bàyyi xel mhm. xam ni gën gi alal la Cheikh Rafal yor mhm. loo xamante ni nag booy dugg si lislaam moom ngay wax ñu doog a nangu ni dugg nga si lislaam ku ki ko dëkkee nag war ngaa rus di ko génne si lislaam muy baatu laay ilaaha illallaah léegi beneen bi si topp muy sëñ Cheikh Fall euh, sëñ Astafurlah sëñ Mourou Moustapha Fall Sidi Karim kat wax nañ ni bam doon soox mhm. bam mbokk yi ñëw ne ko mhm. dañoo bëgg ko roy ko ci li muy def mhm. ngir mën a doxe noonu si kas muy muy li li waral li nga dox bi dani bu ngeen ko mucc mucc sawar ëllëg dëgg la kon lol si njariñu la ilaha illallah kon kon kon dama bëgg ñu dugg foofu li nga xamante ne mooy njariñu ilaha illallah nit ki nga xam da koy si si si si làmmiñam waaw njariñ gi dafa bëri njariñ bala ñoo dugg ci laa ilaha illallah forme bi dañu dugg ci samfal bobu gay def ndax Baye Fall yu bëri dañ koy def te bo len bo len ko fatale dañuy gëna mëna mën a jëriñu gën ko fonk gis nga lolé julleen ci biir kooroon ci biir saka ba ci ci biir te képp koy def di nga dund ba dé do mësa am impuissance sexuelle <laughs> tanki met do ko mësa jambat ndigli met do ko mësa jambat wër bobu bobu and ko gay dem nit sax da daan feebar sëñ Cheikh Fall Baye góor daan ko wax dugal ci garsi noonu muy duggee noonu bu doon miir wala bopp la fi indi wala lu mënoon day tane moo tax pour nga gis si karkat bu Sam Fall ba pare te neewul sam bopp bi daa am lu day yëngatu day mett ndax kàddu gi diis moo tax léeg-léeg nga gis koo xamante ni da ciy dox maanaam di ci boole sax yeneen da ko àttunu léegi nga gis moom da koy boole di tux wala di jël leneen àttunu ko bu fekkee yàlla defal na tawfeex ba nga mën a attan ko dékku ko te sellal ko boo saagaa nit sax aajom Baye Jibi Diouf da am ko am aajo du am mourid dem wax ko sëñ Cheikh Fall Baye góor bam ko waxe Baye góor ni xana Jibi Diouf nekul ci kër gi ñu ne ko ah Gagne Fall mo nga nee ci wàll mourid na dem wax ko aajo ji man ma dem man bam mu ni ko seigne Cheikh Fall de dama am aajo sang mourid nak ma ñaanal Baye Jibi jek jek ni euh, wax lim wax rek ay baat yi mu wax rek yu gar rek ni ko tuuf demal waji taxaw tok du am mourid nak bam toge yow da nga da nga gëmut lu defal wala li ñaanal mu ankañ gëm ko way da gatt kat mu ni ko dama lay leeral nag ci lu wér gis nga yàlla mi sàkk jaami sàkk lépp tey nangu mënta tee aaju faju demal faju na maa ngi daa génn dem ba këram la mu doon sàkk moom mu fekk ko këram mu dawaat ñëw ci sëñ Cheikh Fall Baye Góor sëñ Cheikh Fall ni ko ñun dañoo ëpp waaye ñii saxoo laay laay laa amul lu ñuy wax te yàlla du ko nangu kon ñàkk koo xam ak moo tax laay laay laa boo koy wax waroo di xalaat lu bon waroo soxore kenn waroo du ñaanal nit musiba ndax booy sàmfal sàmfal lu bëri nii yow da ngay dem ba xam nga limite doo ko laay laay laa limite doo ko compté booy sàmfal te it ci si kar si et là yëpp ngay dégg bàyyi njaga waxoon na ko loolu lépp ay turu yàlla la mm-hmm. waaye yow boo xam la dégg waa kii li mm-hmm. na lépp ay turu yàlla la kon daal moom li Cheikh Modou Moustapha Fall waxoon rek <laughs> te sëñ Fallou Fall mi yàlla na fi yàgg ne daa waxoon ni kat turu yàlla wii mm-hmm. bu ngeen ko fonkee. Mm-hmm. maanaam lu ngeen am. Mm-hmm. fonk ko ak tax. Mm-hmm. waaye lu ngeen ñàkk ko tamit lu ngeen ñàkk. sàgganeeg moo leen ko xañ. dëgg lu ngeen am fonk moo leen ko may. waaye lu ngeen ñàkk sàgganeeg ko moo leen ko xañ. dëgg la kon lu lu mat a fonk la. dëgg la kon nañu jàll fii li nga xamante ni mooy njariñ bi. njariñ ji waaw. waaw njariñu tudd. baat bi baat baat bi nga xamante ne mooy. gën a walla léegi njariñ ji. Mm. ak teggini la ñu boolewaale. kay xam nga boo jëlee teggini ci ngay door a mën am njariñ loolu lu mot bàyyi xel la ndax ku ci nekk am na nooy sikaree te daa bu fekkee sikar moom sàmm faal ak benn benn ak yooyu li njëkk mooy yow laabalal sa xol ñaareel bi mooy laabu biti jàpp bu la janaba waree gat kii ko te bul xeeñ mukk lu ñuy tere moo xam sàngara moo xam tux moo xam euh, soble moo xam laaj yu demee noonu nga dugg si te sikar si boo koy def sopp nañ sax bul sol la ndax dàll mun na am sobe te doo ko yëg waaw bul sol mbaxana te boo koy defit na ànd ak teewlu ak yar ak i tayit bo ci dugg lepp lo ci fas dang ko ndox mañ tek ci digg ba nak ñu bari dañu leen aara laa gii yu yàgg la fi te jitu fi ndox mom moy mo gën zam-zam la wax seigne Cheikh Fall Baye Gour neena ndox mom mo gën zam-zam ci yeen bo leen paré lu ca way fas am ko ndon rawale naan dañ koy césarien at bu ne bu am dom ndox mom ñu jël ko fekk ko ci hôpital ba jox ko mu nan ci ray ci biiram kenn du ko opéré hmm. waaw jigen gu ta am dom jigen du mënta ëmb secret yu bëri laay laay ndox ma lu ne lañ ciy fajj waaye nag ñun dañoo deeri aada la wala yu demee noonu waaye lépp lay faj léegi nag boo xoolee aada bi bu fekkee ci wàllu ku yor kurus moom di ko def xam nga wax naa la kuy sikkar samfaal ak yooyu sëñ jaa dani ki yor kurus di def laay laay la waxudda min aada bi zikri zakiri juluusu habdin fi lmakaa makaani taahiri mustaqbil al qiblati za tabarroi mutawarrikan kaman sala fahi tayibu raati islam taxtalu majalisu zikri isama nadlu Mm-hmm. anil malaikati istiqmaayi wa muminal jinni ala mm-hmm. wa xudda ixlaasil fata fi tasiya mm-hmm. askaarihi min kulli sawbin fadriya wa in takun mubtahiyan fa nafu awla ma taxsim yaa aqi bika bi laa ilaha illa wal muntahi muxtasiran billahi gis nga ko nee na bokk na ci tegginu zikar booy zikar di wax laa ilaha illa jël ab dog di ko wérd da ngay da ferankulaay li njëkk mooy dangay ngay laab mooy jàpp wala janaba bu la waree nga toog ci barab bu laab nga jublu penku nga pooju wala nga ferankulaay comme ni ma toogee mel ni kuy julli bu la neexee na ngay gëtu mooy parfum wu ndax li tax ngay gëtu mooy nee na malaaka yi ak jinne yi gëm dañ lay déglu laay laay laa foo koy wax nga yëg koog yëgoo ko malaaka yi jinne yëpp gaaw nañ la di la déglu ba keroog ngay noppi moo tax lu mat fonk la mu ni it na nga sellal sa jëm ak ak maanaam ak li ngay sikar te li ngay sikar bu ci rax dara na yàlla tax bu ci rax dara te it booy sikar booy sikar di door a débuté da ngay sikar laay laay laa ak dog boo ci mën a jël waaye boo demee ba àgg ci yàlla day araamati ci yow ngay da ngay ngay dàq di saxal xam nga dàq gi mooy mooy laa ilaha amul benn buur illallah ku dul yàlla ga mooy mooy saxal gi sëñ Tuubaa nee loolu day araam ci yow yow yow mu àgg mi léegi xam nga looy wax yaa allahu nga wax si xamal ma la moo tax yooyu gars yi dañ ko war a xam gisoo tijaane bu ñuy bu ñuy wasifa ba matal yëpp bu ñuy daaneel danaan allah allah tey sëñ Touba na lépp sëñ Touba lépp la wax. Mhm. laa ilaaha illallaah boo ko jëlee douze lettres la. Mhm. Cheikh Ibrahima Fall boo ko jëlee douze lettres la. yaa ngi dégg Xaadim Rasul boo ko jëlee douze lettres la moo tax benn kii mooy kii kii it mooy kii ñoom ñett ñëpp benn la. Mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall boo ko arrêté poids ba mu la jox boo jëlee laay laa ilaaha laa cent soixante-six divisé ko ab benn benn benn lim bu gàtt trois lay doon wala quatre moo lay jox maam Cheikh Ibrahima Fall. kon mën nañ see déggee ni. Mhm. bu ñu jëloon jëf ñëpp. maanaam mhm. àdduna sépp boole leen si benn balance. Mhm. jël Seera Fall teg si benn balance mu wat leen. mu wat leen ñoom ñëpp. ndax laay laay la laay laay la lambo <laughs> laay laay la lambo. waaw waroo fi ne nii mbóot ma laa xam moo tax yàlla topp ko dara. waaye am na ay secret yoo xamante ni fi mu ne nit ñi dañ koy dañ koy utiliser lu bari. ci ci baat boobu. ci laay laay la. laay laay la daa sax ay talzam. talzam mooy. talzam mooy benn tur yàlla boo xam. boo ko waxee benn yoon dañ koy multiplier ci laay laay ay milliards yoon comme masalan tey ji xam nga naa la boo àggee doo wax laay laay la wax da ngay wax yaa allaahu fi ne ni yaa allaahu boo jëlee am na ci benn talsam boobu boo ko dóoree benn yoon am nga 1742 yaa allaahu boo jëloon baatu ajj hay la lun sam xasun ñi defal asrar moom dinañ xam loolu boo jëloon aj hay la lun sam xasun boo ko waxee benn yoon am nga 66 fois 27 mooy allaahu bu ñu multiplier 27 yooyu yëpp mag ñi nañ ko Cheikh Rafal nag yooyu la amoon ak yu raw yooyu yoo xam ne benn yoon boo ko waxee da nga am un milliard yoon ci laay laay la nga am armel yoo taxaw boo ko waxee ñu bal ñëpp ñun fa doon buggal Cheikh Rafal am na ko ak njabootam moo tax ñi xamul ñooy dinget Cheikh Rafal waaye ñi xam te dégg te yeewu ñoom daw nañ fëx toppi Cheikh Rafal nekk ci ginnaawam nag te duñ jéema doon dara nag ci yoon bi nekk taalib Cheikh Rafal rek daraja yëpp xanaa xamoon ne bi ci gën a rëy mooy nangul Cheikh Rafal doon ab bi ndax bu ëllëgee da ngay cëru est-ce que waaw ndax boo wootee woo sa bopp sëriñ yaa ngi dégg waa tam matoo ko bu ëllëgee dañ lay duma waaye boo demee se Seex Faal bu ëllëgee da ngay cëru moo tax daraja yëpp looloo ci doole léegi nag boo xoolee ay wax naa la li njëkk ni laay laay laa kenn du ko joxe ci maanaam ci kenn du ko bind ci ay téere laay laay laa gémmina ak gémmin la laay laay laa sëriñ boo bu la gërëm ba mu nga taxaw mu jël fooy bind jox la ni la maag yow nga dem comprendre non moo tax muni fa samaru tahlil tawhid sama li khalu wa man khalima nena na meññanteefu laa ilaaha illallaah moy ay njariñam nee sa so soo koy wérd yow mi koy wérd da ngay xamni yow mom yaangi kennal yàlla ta kuy kennal yàlla bo legge kenn du mbugal li anna tawhid zawi takallum xawaaxu kullu muminin wa muslimu samaru takbir wa hamdin xat jala tahzimu wa sukru jalla hala nee na meññanteefu laay laay la dafa am nag ñaar bépp jullit bu gëm maanaam na nga xam ne dafa am ñaar ñaar benn bi mooy boo xam dañ koy jàng ci ay këyit di ko wax boobu mooy tawxiid takallum beneen bi mooy taxaruuf mooy secret laa ilaaha illallaah takallum bi nag moom la jëkk jàngale ca téere yu ndaw ña tasoodu si xaar wax ni antumi billahi wal malaaykat wa kutbi haadi saalik wa saalikat wa yowmillahi wa rasul kiram wal xadir allazi yajul maram gëm yàlla malaaka yi téere bi si mujj ndogori ak yonant yi mu juróom benn mën nga koo wax ni jàng ko ci ay téere te ko fa la ñu xam nag gëm nga ko dëgg nga dugg ci tool yàlla di liggéeyal yàlla ak di di bàkk turam boobu di ko wéetal saa su ne laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah képp ku koy wéetal ngisal du mënati nekk ci yow alxuraan li muy am am doole ñu ni sekkaram bépp a ngi ci faatiya faatiya sekkaram bépp a ngi a ngi ci baaba baa bi sekkaram bépp ci moom ci nuunul wal xalmu mooy suratul xalam sekkare nuunum nag moo ngi nekk ci laa ilaaha illallaah moo laa ilaaha boo ko doon bind baatu nuun du ci ne baatu baa du ci ne moo tax laa ilaaha illallaah fi mu ne nii sëñ Tuubaa nee na boo ko waxee tawxiid matal nga ko féq yëpp féq moom mooy jullee woor natt ak naag sëñ Tuubaa nee na jëfe nga ko rafetal maanaam def lu rafet te yàlla tax matale nga ko boo demee ca tësudu subaan loolu la wax moo tax loolu boo ko jàngee ci nga xam ne Baay Faal moom gañe nañ xoolal benn kàddu ko nga wax ko lu yàlla santaane yëpp def nga ko lu yàlla tere bàyyi nga ko loolu sëñ Tuubaa wax wax nga ni laa ilaaha illallaah bàyyi xel ci ni li muy tekki mooy amul benn bu dul yàlla wax ko ba pare bàyyi wàlla xel noonu fikiru ko méditer nee na nga tooyaa boo ko kon ki dëkkee li mom du faté yalla muko Moro Serafal bam mu leen ne lu tax ngeen julli ñu ni ko akhimu salat li zikri dañuy taxol julli ngir ko yalla mu ni adom ah yena sagal a ku ci sëlmal dañ leena wara ray mhm. ndax man mu tollu yalla bind leen melo gu rafet gi di leen xewele lek leen te naan ci mboolem meññeenteef dagan yi ma leen jox ci aduna ba pare ngeen nek fi diko ko Serafal leen ku ci dañ ko war ray li ci doy war moy mhm. lu ne lu ne dal dañ leen koy wax. mom mhm. tuuma ju ne tek nañ ko sen kaw waaye baatu laa ilaaha illallaah moom lu tuuma ji bari bari bari mhm. bu dikkee ñu ñu ñu ñu jox leen ko ne leen ñoom ñoo ko moom ndax ku ko si yëkkati wut sax mhm. Mhm. maanaam demoo foo xam mboolam dañ fay daje di ko yëkkati wala ngay màddaat di ko def foo leen gis ñoom Baye Fall ñi ngi yor seenu kurus waaw bu ñuy dox si mbedd mi noonu la ñuy doxee waaw bu ñu toogee ñoom kese loolu la ñuy loolu la ñuy wax muy baat boobu lañu la la ñuy utiliser saa su nekk maanaam dem nañ ba buñ bu ñu amee sax lu leen jaaxal maanaam laa ilaaha illallaah la ñuy wax la ñuy wax waaw waaw maanaam nekkuñu sax comme di tudd nit ñi di saalit di di wax way fu ma jëm waaw ñoom ñuy wax la ilaha illallah xam ni ñooñu ñu ñaar ñu léegi ñooñu moom xam nga ëpp na ëpp na ëpp na di leen oh, di ngat ma di mm-hmm. leen tëkkale kenn waaye dafa am lu ma lu ma lu ma bëggoon nag balaa balaa ñoo ñaan ndax waxtu bi fi mu ne jot na waaw damaa bëggoon ñu bàyyi mm-hmm. sëriñ dimbali ñu si lenn loo xamante ni mm-hmm. nit ki dana ko saxal bàyyi faal bi wala murid bi wala julit bi koo xam sikar soo xam dana ko saxal loo xamante ni dana ko jariñ bu baax a baax léegi loolu dama ci sawar lool xanaa xamoo ni Baye Fall rango kurus yàgg na ci yoon bi waaye daa am lu ko waral du danga koy rangoo rek na pour si kar la rang kurus yu bari yooyu kurus gu ci ne am na lu muy dox yaa ngi léegi laay laay laa boo ko jëlee damay joxe secret boo xam ni ñëpp mën nañ koo def Baye Fall yëpp te ko ci def maanaam waxuma la dépasse moom moo gën a ñàkk solo waaye da am contact direct ak sa borom xam nga laay laay la la poids mystique bi 166 la waaye nag moom fukki lettre la ak ñaar muy douze boo jëlee cent soixante six fois douze dalay jox mille neuf cent quatre vingt douze mille neuf cent quatre vingt douze laay laay la laa waaye xam nga noo koy tëjee da jël yàllaaw yàllaaw soixante six la boo ko multiplié par neuf lu tax neuf nit ki juróom-ñeenti bu nekkee góor juróom-ñeenti bën bën la am bu dee jigéen fukk ak benn ndax ñaari weer moo ci dellu ndax day génne soow waaye juróom-ñeenti bën bën la am. <laughs> dawal dawal boo boo jëlee neuf. multiplier ko par 66 dala jox 594 kon boo defee 1992 laay laay laa da ngay wér di yaa allahu 594 tëjee ko ko lii doy na ab sikar su ak ngoon bàyyi faal bu ci sax dépasse du la sonal di am contact direct yow sa diggante sa borom te bëgg gi nga bëgg see rafal day yokk waaye du mu sa wàññeeku te sax pas it kenn du ko dindi. Mhm. te lu te lu gàtt la bëri n ay yeneen yeneen njariñ. waaw sëñ Tuubaa tënk na ay xasida boo xoolee mooy bu tëggeewu ko baatu laay laay la laa waaye secret la fay indi mooy boo jëlee bayit yëpp 166 la mooy laay laay la laa moo tax bayit bu ci nekk fi ne nii am na lu mu jàpp ba xasida ga jeex ba salli wa sallim ala mu tamit jërëjëf Baye Serigne sax jërëjëf xam naa lii dañ ko gën a yaatal insha allah ñi ngi lay jaajëfal bu baax xam naa kàddu bu mujj gi rek akasa waa di sant rek tey ñaanal sañ am di Moodu Mbenda mhm. ak mbooleem njabootu Serafal gépp mhm. di ñaanal Baye Fall yi lépp lu ñuy sàkku rek yàlla nañ ko am lu ñu mën a amit yàlla nañ am Cheikh Fall lu ñu mën a ñàkkit ñun nañ am Cheikh Fall mm. asalaamaaleykum rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Baye Serigne jërëjëf murid yi nga xamante ni ñoo ñu doon teewlu boobu ak léegi di jaajëfal bu baax sëñ Abdou Ndiaye mi nekk si eh, xarala gi mm. ak mboolem murid yi fi ne rek Baye Ndongo Fall mm. sëñ Ablaye Ndaw ak mboolem mboolem yi ñuy teewlu nag ñu ngi leen di siyaar lu bare bare waay fu waay nekk rek di ñu béggee di béggee émission bi ñu ngi lay siyaar bu baax a baax waaye di siyaar bu baax nag ndax boo tuddee sikkar di ko wax mm-hmm. war ngaa xool ñi nga xamante ñuy dundal baat bi mhm. muy daayira pikin bii mhm. sikurlaa bi nekk pikin te ñoom maam seex jiite ko ñooñu noonu ay ñoom Ahmadou Ndiaye dañ leen a war dañ leen war a di di di di tudd mhm. waa Gébbu Faal tamit nga xam ni ndakaaru ay représentant lañ fi si si si tur yàlla ak ñeneen ñi nga xamante ni maanaam boo ko boolee ëxlu sikurlaa day day day day kuréel goo xamante ni. Mhm. bépp murit wax ma la Baye Fall waaye bépp murit. Mhm. da nga see waroon fexe adhéré. Mhm. ndax ñoom li gën al li gën gën gi alal lañ yor. muy baatu laax ilaaha illallaah te di ko defal Cheikh Ibra Fall la. fépp fu mu ko soxlaa bu leen wooyee ñu ñëw. di ko dundal bu baax a baax. kon ñooñu war nañ leen sant bu baax. war leen a gërëm waaye tamit war leen a bàyyi xel ba pare di leen dooleel. kon loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fàttali murit yëpp. tey jaajëf jaajëfal ñëpp nag. sëñ Matar Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax moom ñaari Baye Fall am na solo lool <laughs> ñi ngi jaajëfal mur yëpp di tey ñaanal ñëpp jàmm ma yërmande xéewal wér ak wér la mucc ak ndam sant ak seefaa gu bari gun mën a liggéey sëñ Bamba doole Cheikh Ibrahima Fall ña jébbaloon yàlla ak yonnen ba seeni bakkan ak seeni ña jébbaloon yàlla ak yonnen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee ragal ñoo def lu wér lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war saxaari ndigal njëbbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi léegi bafungu ñi léegi waaxu ñi wari fas murit ya dugg gaaluk cant benn fëxal ñi lee ngi rootaani ñee ngi jajj ñee di nasal